gars yi maa ngi jégalu ah parfois moom gars yi dañuy a saboté affaire yi ba mooy loolu connexion bi day daw donc maximum de partage rek donc ñu ñëw commencé live bi donc xam naa live bi du gudd. maa ngi nuyu ñëpp gars yi di leen share ñëpp euh, di wax ne ñu partage la fi maximum rek donc ñu ñëw euh, par rapport ak li nga xamante ne nii moo bees ci dossier Cheikh Omar Diagne wala sax xëy manam mën naa du lu bees mais lo xamanteni ni euh, administration pénitentiaire mi ngi koy def donc te ñu yaakaar ne ordre la bo xamné état du Sénégal moko jox pour muy def les sales boulots donc je pense que lolu il faut que Sénégalais yëpp xam lolu donc voilà ñun ñëpp xam nañ aussi fi dossier bi tollu moy kané ba légui fi mu nekkoon la nekk ba légui amul dara lu ñu ci tijji du information judiciaire du du enquête du dara.

wala nga yaakaar ne kii nit de homme des valeurs la wala kii xam nga bëggul mbirum góor jigéen wala sans mais après am na ñoo xam ne bu ñu waxee rek nga xeeb leen donc te je pense que loolu baaxul si réew euh, mën naa tudd turam muy docteur Abdourahmane Diouf je pense que mu ne nii oui nii non donc voilà moom bu nekkee député euh, du voter pour ñu euh, criminaliser góor jigéen mais aussi tamit du ko du ko du ko du ko du ko nangu c'est parce que ay waxu tàppale quoi ay wax yo xamné ne fenn donc docteur Abdourahmane di wax ko en tant que kilifa quoi donc di wax ay wax yo xamné xala bu ndaw sax bu ko déggee né mag mi limi wax ni teguwul fenn quoi ay wax yo teguwul la quoi donc je pense que après dinañ si ñëw si fin vidéo bi pour gën ci def ay léral euh, donc tay nak mom moy 65e jour bo xamante ni professeur Cheikh Omar Diagne ñu ko té ci kasso bu rëbës li taxoon nu jàpp ko mooy diffamation injure publique ñu dem ba yokk ci menace menace bi nag xëy na euh, xëy na du lu bees mais lu ñëwaat la ci dossier bi parce que bu buñ ci deful woon menace duñ ko mën a placer sous mandat de dépôt mais li si gën a doy waar mooy ki nga xam ne da ne euh, diffamation nga koy topp ak injure publique maanaam loo xamante ni daf ko wax publiquement Euh, def ko si ben débat télévisé nit ñi di ko seetaan leen li bo demee page Facebook am ba légui effacer wu ko man ko fa bind donc ñu né loolu dañuy tijji information judiciaire donc ki yor dossier muy 6 euh, bu deuxième cabinet muy Mamadou Mamadou Mamadou Seck je pense bon ma légui nak néna day tijji information judiciaire ci loolu lo xamanteni télévision lañ ko waxé mu leer nañ Sénégalais yëpp diko dégg quoi ak lo xamné ne Facebook la nekk xam nga lan lañuy tijji information judiciaire mooy loo xamante ni xëy na nit ki dafa def dara wala mu ray nit wala benn crime boo xamante ni wala drogue boo xamante ni donc jàpp nañ ko si nit ki ñu bëgg xam ligne bi xool fan la jugee lan mooy tracé bi ñen ñoo ko findi ñen ñoo ko dugal boobaa mën nga tijji information judiciaire pour mën a dajale yenn fee yu bëri pour mën a atte dossier bi mais loo xamante daf ko wax publiquement ñëpp di ko seetaan lan moo jar information judiciaire parce que c'est pense que c'est simple quoi moi ils sont wax moi mooy que ne góor jigéen ñoo demandé max Sall pour mu chez Cheikh Oumar donc c'est c'est c'est aussi simple quoi. les nag gars yi live maximum léegi les lii euh, y a leer na lii permis de visite permis de visite gis ngeen Cheikh Oumar Diagne sama tour moo nekk donc permis de visite valable vendredi euh, mardi et vendredi donc il y a ñuy jot de dem fi nga xam ne mooy tribunal si euh, si si euh, bureau doyen de juges Mamadou Seck jot nañ ko am muy permis de visite mais lan moo gën a garaaw si lii man bii mooy deuxième fois tey ma dem buntu ma dem biir rëbës neuf heures fekk ma fa ma àgg ñu ne ma mënoo gis Cheikh Omar Diagne parce que lan moo tax mënuma ko gis parce que nee nañ dafa am ku dugg gis ko ba pare. léegi li gën a garaaw mooy euh, léegi yamatuñ rek si si si si prisonnier bi maanaam xagn ko ay àq ak ay akam ak yelleefam tëj ko ci biir kasso bi mais au delà de lolu dañ koy continuer diko xagn li nga xamanteni ni moy ay droit am bu nekké ci biir prison bi Cheikh Omar Diagne euh prison yi nekk rebeus parce que dañu ko xaj par ay groupe quoi bu ma expliquer pour nit ñi euh, comprendre quoi ba lañuy jaawale fofu moy dañu naan groupe 1 ñom ñoy am visite le lundi groupe 2 le mardi groupe 3 le mercredi Cheikh Omar Diagne bok ci groupe bi nga xamanteni parce que comme Samb 38 la nek dafa bok ci groupe bi nga xamanteni ni ñoom jeudi ba jeudi la am visite mais li gëna graw ci si moy dañu né Cheikh Omar Diagne mom au delà muy am jeudi ba jeudi par visite légui bu amé jeudi bi visite jeudi bi di ñëw do am visite daf koy jëlal légui bi ci top lay amaat visite té bi ci top bu amaté visite benn visite lay am yene yene ngi dégg bu baax li ma leen di wax manam dañ né Cheikh Omar Diagne mom amul droit di am visite chaque jeudi.

ñu tëj Cheikh Omar Diagne ci kaso bi mu war a am visite chaque jeudi wala ñu war ko def chaque quinze jours jeudi bu jeudi bu nekk bu amee visite jeudi bii mu jëlal beneen jeudi am visite ba pare ñu ne chaque jeudi bi mu jëlal muy par quinze jours benn visite la am droit am bu ko kenn xasee ba dugg ba gis ko keneen dootu ko gis léegi jeudi bii ñëw ba su topp la keneen mën a dem pour gis ko lan mooy dayu loolu man lii mooy deuxième fois ma dem ñu may résider parce que nee nañ a gis euh, après bi fa demee am na benn gaañ bu fa dem li loolu moo doy waar xam nga man sax dama dem ci porte bi xëy na xaw xàmmee nañ ma xawma ma xàmmee wuñ ma dañ ma récité ci porte bi ne ma am na ku ko gis ba pare mënoo koo gis mais moom bi mu demee ay 10 heures yooyu noonu dañ ko dugal ba mu dugg si biir salle ba toog ñu toog toog di xaar di xaar lu yàgg ñu jékki-jékki ñëw na ko Cheikh Omar Diagne mënoo ko gis parce que déjà am na cinq personnes yoo xam ne gis nañ ko maanaam nee nañ ko yow mënoo ko gis parce que am na cinq personnes yoo xam ne visité te man kooku maa ko fa jiitu 8 heures laa fa dem te dem naa ñu ne ma dafa am kenn ku dugg kon keneen doodu ko mën a gis moom mu àgg ñu ne ko am na cinq personnes yu yoo xamante ni gis nañ ko pare xoolal fen yooyu nga xamante ni administration pénitentiaire mi ngi koy fen ñi nga xamante ni ñoo ñëw di seet Cheikh Omar lan mooy ndayu Cheikh Omar Diagne nekk ci kaso bi amul droit di am visite Zaxodi bu fekkee 15 jours amul droit am ñaar ba ñetti visite lan mooy ndayu loolu te prisonniers yi di am visite à partir de 8 heures ba 13 heures ñu pause ngoon na abi 15 heures ba 17 heures ñu amaat visite lan moo tax Cheikh Omar Diagne chaque 15 jours yu nekk benn visite lay am droit am loolu si ban genre réew la ñu nekk ban Sénégal la ñu nekk mooy dangay ngay tëj nit ko ba pare li ko xañ ay ak ay yelleefam donc je pense que loolu moo am si dossier Cheikh doole boo xamante ni yamatul. ci dugal ko si biir kaso bi mais jaay doole bi day continuer di wéy si biir kaso bi ñoom ñu koy def administration pénitentiaire di def parce que état bu Sénégal moo ko sant di ko def loolu lan mooy ndeyu loolu si ban réew la ñu nekk si ban réew la nekk Sénégal. yow nga ne prisonnier bi tëj nga ko day am visite chaque 15 jours mais chaque 15 jours yi benn visite la am droit am benn visite boo xam 15 jours ba 15 jours benn visite te te visite yi boo ñi ñi lan lan lañ bind mi ngi nii.

té jaay doole bi yamul ci biti mais ñi ngi jaay doole ba ci biir kasso bi billahi billaahi wallaahi watallaahi beeboo na ku nekk nga dugg ci combat bi pour la libération de Cheikh Omar Diagne parce que bu fekkee li ñii ñi ngi koy seetaan muy jàll état bu Sénégal di continuer di bafouer ay droit am di continuer di violer ay droit am si biir prison ci biir prison bi nga xam ne mooy prison bu Rebeuss bi bu nekk te yeneen prisonniers yi kenn defu leen loolu lan mooy ndey ñu koy def Cheikh Omar Diagne te defuñu ko yeneen prisonniers yi lan moo tax yeneen prisonniers yi mayu leen ñu am ñu may leen ñu am visite toute la journée Cheikh Omar Diagne par 15 jours muy am benn visite par 15 jours benn visite lan moy ndeyu lolou xanaa Cheikh Omar Diagne mom du sénégalais comme yeneen sénégalais yi Cheikh Omar Diagne mom du détenu comme yeneen détenu yi nga xamné ño nek nekk biir prison bu rëbës lan moy ndeyu ñu may détenu yi nga xamné ño nek nekk sen seen ak sen yelef ak sen droit de visite te muy ñu Cheikh Omar Diagne ci bande réew la ñu nekk ban genre Sénégal moy da ngay japp ben nit parce que ay góor jigéen ñoo demandé ñu japp ko boko jappé après après da ngay violer ay droit am violer ay àq ak ay yelleefam sénégalais yi billaahi wallaahi wa taala bewo ngeen yeewu te xamné li nek di xew ci biir prison bu rebeus ak professeur Cheikh Omar Diagne gaay yi fi jëm moy dañ ko fay tëj ba heure bu leen neex ba paré continuer di bavuer li nga xamante moy ay droit ay akam ak yelleefam te lépp nak Macky Sall en personne la parce que mom mo ne ci ginnaaw administration pénitentiaire bu rebeus ñuy def lu leen neex te defuñu ko yenen prisonnier yi defuñu ko yenen prisonnier yi lan mo tax defuñu ko yenen prisonnier yi di def est ce que lolu jaaduna na est ce que lolu jaaduna na ñun ñuy continuer di seetaan ñuy continuer di toroxal Cheikh Oumar diane ci biir kasso manam toroxal bi yamatu rek yobbu ko kaso pour humilier ko mais dañ koy continuer diko ko toroxal diko xagn li nga xamanteni moy droit de visite bi nga xam di chaque da nga am droit am ko parce que detenu bo xamanteni ni placé na la sous mandat de dépôt da ngay am sa mbokk bu ko nexé tey tey mu dem gis la malgré nak légui li xew ak coronavirus moy day am ben ben 15 jours bo xam da ngay nek ak quarantaine mais 15 jours bo xasse ba jeex da nga am droit à visite lan motax bo démé ci euh, bureau de justice doyen de doyen de justice Mamadou Seck bo fa démé de wut permis visite lan motax waxuma ne ma par 15 jours lay am lay am droit visite ben visite lay am gisu leen benn permis de visite bo xamanteni ni dañ ko wut pour Cheikh Omar Diagne ñu bind ci né chaque 15 jours ben visite la am droit am c'est pas normal du deug du yoon li xew ci dossier Cheikh Omar Diagne du dëgg du yoon te ñu ngi koy seetaan ñu ngi seetaan lu garaaw a garaaw loo xamante ne nii billaahi wallaahi wataalaahi ku nekk si ñun ku nekk si ñun di xeex ay àq ak ay yelleef di xeex injustice ku nekk si ñun di xeex li nga xam ne mooy mbirum góor jigéen jàppal ne lii dal Cheikh Omar Diagne mi ngi sa kaw li dal Cheikh Omar Diagne mi ngi sa kaw ku nekk kenn rëccul si si ñun parce que lii dafa garaaw trop c'est trop lii dafa ëpp lii dafa ëpp dafa ëpp yow nit ki tëj nga ko doy na mais bul violer ay li nga xamanteni ay àq ak ay yelefam xana ki rey nit sax ki rey nit sax ki rey nit sax dafa am ay akam ak ay yelefam yo xamanteni dañ ko wara respecter même bu demee prison dañ ko wara respecter waxuma la ki nga xamanteni ni dañ ko tëj parce que nena diffamation insulte public lañ ko tëjee sama frère Gas El Salvador kan li genn bëgg dem la genn lan lañ ko jappé diffamation même fee ñu jappé Cheikh Omar Diagne lañ ko jappé te jàpp nañ ko boobu bi ñu koy jàpp fekk na Cheikh Oumar mi ngi biir kaso bi jàpp nañu ko ba siise ko tëj ko un mois de ferme te ba léegi Cheikh Oumar mi ngi te moom ko topp grand délit bàyyi ko parce que Cheikh li ñu koy toppee diffamation dans les li nga xam loolu la yoon wax yoonu contrôle judiciaire nekk si woon yoonu instruction nekk si woon lan moo si amoon mooy dañ ko waroon yóbbu flagrant délit bu fekkee ñoom dañ ne diffamation injure publique injure publique lan la wala ñoom bu fekkee ñoom dañu jaawale injure publique ak injure privée ñu wax ñu injure loo xam ne daf ko wax publiquement ñëpp di ko seetaan télévision débat débat émission ñëpp di ko seetaan léegi lan moy ndey ñu jël loolu di ko yóbbu instruction di def information judiciaire information judiciaire néna naa leen ñoom ñooy am droit heure bu leen nexé la ñuy information judiciaire bi bu leen nexé fii ak un an fii ak deux ans ñu né dañuy top dañuy top li nga xamanteni moy sen sen sen sen enquête bi ñuy def pour information judiciaire bi nga xamné police judiciaire moko wara def té bul xam kan lañuy paré heure bu leen nexé lañuy paré légui nak il est temps ñun sénégalais ñu jël combat bi xamné Cheikh Omar Diagne bu ñu duggul xeexal ko. billaahi wallaahi wa taalaahi Macky Sall pareegul pour libérer ko parce que ba léegi mi ngi topp ay ordre yoo xamante ne ay góor jigéen ñoo koy jox pour yéen Macky Sall lan moo ko lan moo ko lan moo ko jaaroo barki démb Paris bi mu jugee RIS. parce que ñoom ñëpp c' est des link xoolal c' est des link LGBT ay link góor jigéen ñoom ñëpp ay góor jigéen gis nga ñu bëri si ñoom mun ñu toog benn un mois te demuñu Paris wala wala wala ñu dem Allemagne parce que ay ay ay ay ay dañuy yi ñuy taafandoo di ko wax nit ñi dañuy fen waxuñu dëgg.

te ku nekk xam na ne Macky Sall dafa taxaw fii wooyee imaam ne leen li nga xamante ni mooy élection locale yi tax ma ñàkk ko parce que dañu jël li nga xam ne mooy débat homosexualité bi di ko campagner moo tax parce que askan bi xam nañ ne askan bëgguñu góor jigéen li ko campagner moo tax ma daanu si élection yi. Macky moo wax loolu en public télévision ñëpp di ko dégg en public la ko waxee télévision ñëpp di ko dégg.

ne ma li taxoon mu bëgg a dem à l'Assemblée nationale xëy na soxnaam mi ngi seetaan live mën na ma seere mu ne ma li taxoon mu bëgg a dem à l'Assemblée nationale du salaire du oto du gasoil du carburant du dara soxlawul garde corps soxlawul dara parce que li taxoon mu dem pour mën a teewal askan bi aussi tamit loi yi nga xam ne ñu ngi ko fay jàllale parce que si lay gën a amee accès si yenn loi yi nga xam ne mi ngi jàll à l'Assemblée nationale pour teewal askanam loolu kese mais soxlawul salaire soxlawul oto soxlawul dara parce que loolu lépp suñu borom defal na ko pare muy teraanga parce ku nekk nag am na teraanga boo xam ne suñu borom defal na la ko au delà ngay dugg si combat boobu au delà ngay nekk si yeneen ak yeneen. léegi nag xañ nañ ko loolu parce que xam nañu ne ku nekk ku mel ni Cheikh Omar Diagne bu demee à l' assemblée nationale day déranger état bu Sénégal day déranger Macky Sall parce que Macky Sall nekkul si lenn lu dul naka lay fexe pour daganal góor jigéen Sénégal bala moo dem 2024. parce que depuis 2013 ba légui ñi ngi jox ay récépissé goor jigéen bis bu yalla sàkk di leen di leen jox ne leen am ngeen liberté am siège di def ay réunion di def lu leen neex parce que am ngeen am ngeen droit circuler ci dëkk bi parce que am ngeen ay récépissé yu leer nañ ñaata mouvement citoyen ñoo fi nekk di xeex bobu ba légui depuis depuis depuis avant 2012 ba légui récépissé sax nanguñ leen ko jox parce que dañuy xeex état bi ñu jël ay récépissé di ko jox ay goor jigéen ñoo xamanteni ni ñoo yàq suñu ay doom yàq suñu ay valeurs dem ba nit ñi dem ba suñu suñu dem ba xale yi da ngay parfois da ngay gis nit sax doo xam ba xam góor la wala jigéen la te loolu lépp dañ ko état bu Sénégal daf fi liggéey liggéey bu am solo jaarale ko si éducation bi jaarale ko si santé bi jaarale ko si lépp boobu ba léegi di doxal ba tey mu àgg fii mu egg ni lépp grâce à Macky Sall moo góor jigéen nga koy dégg ni nga koy déggee Sénégal jamono Abdoulaye Wade daan nga ko dégg mais sarax nga koy dégg wala si benn nit da nga ko daan déggee te nit ku siiw la woon mais jamonoy Macky Sall bis bu set nga dégg ay góor jigéen moo tax sànq li ma wax si live bi ragalu ma ko ah, mooy bépp homme politique boo xamante ni nii taxawul wax position bu claire si li nga xamante ni mooy mbirum góor jigéen bu ko kenn voté à l'Assemblée nationale. parce que bépp homme politique boo xamante ni jëlul ay position yu leer yoo xamante ni si mbirum góor jigéen ne bu ñu toogee dañuy criminaliser góor jigéen bu ngeen ko yóbbee à l'Assemblée nationale mooy day day daganal góor jigéen gars yi dañu xoolal dañuy yi ñuy def nii dañu di di ay xeetu manipulation la quoi di ñu taafantaloo dañu nax mënuñu nax dañu yeewu dañu yeewu nax. bu ñu jàppee ne sénégalais yi ba léegi dañuy nelaw bu ñu jàppee ne ba léegi mën nañu manipuler sénégalais yi di indi di wax di indi ay idéologie si naan non c'est que c'est-à-dire xam nga joo joo jigéen tollaguñ foo xamante ni war nañ ko criminaliser parce que boo ko criminaliser mën nañu gis nit jékki-jékki rek ne ko góor jigéen nga loolu mooy waxi lan waxi tappale yooyu mooy lan ay mën nga dëkk si benn ko nga jékki-jékki rek gis gis nit neexu la nga ne góor jigéen

képp koo xam ne bëgg nga nekk député à l'Assemblée nationale wala nga bëgg a nekk président Sénégal da ngay wane sa position yu claire ci li nga xamante ni mooy suñu ay valeur fan la si toll boo toogee fan nga nar a jëmale suñu ay valeur est-ce que di nga ñu ko sàmmal est-ce que di nga ñu ko sàmmal léegi nag li xew wax naa leen ko si wàllu permis de visite yi muy euh, boo demee di ñaan permis de visite ñu def si ñu def si vendredi ak mardi te donc si professeur Cheikh Omar Diagne dañu ne ko yow amoo droit am visite ñaari jours yooyu semaine mais euh, chaque deux semaines bu nekk benn visite nga am droit am muy chaque quinze jours benn visite te benn visite bi donc parfois sax kenn du ko gis boo demee ñu ne la am na ko gis ba pare man tey huit laa dem prison bu rëbëb ñu ne ma am na ko dugg ba pare instant yi mënatoo dugg mais boo ñu xeex pour ñu libérer Cheikh Omar Diagne ah, parce que loolu rek laa fi gis li ma fi gis mooy état bu Sénégal pour libérer Cheikh Omar Diagne parce que góor jigéen yi pareeguñ pour bàyyi Cheikh Omar Diagne mu dem ñibbi këram loolu moo tax dem nañ bay mujj sax di négocier di woo ay nit ñoo xamante ni ay ay ay marabu lañ pour ñëw naa leen ñëw leen ngeen perendi ko parce que kii dafa dafa amee seen sëriñ dafa waxoon dafa waxoon li am ñu jug kenn xamul fan lañ jugee ñëw di pelent ak seen ay jóoru pelent mais mujjul fenn parce que dëgg rek mooy dëgg te dëgg rek mooy mujj dëgg mooy mujj te dëgg mooy dëgg Cheikh Omar Diagne dafay déranger li nga xamné moy état bu Sénégal loolu moko ko kasso si bi ba légui motax sénégalais yi il faut le 11 muy samedi ginnaw suba inshallah allahu rabbi le 11 faaw sénégalais yépp ñëw 14h place de l'Obélisque ñu fess fa del pour wané suñu soutien ci Cheikh Omar Diagne par principe nak par principe. par principe mooy lan parce que ànd ñu si góor jigéen parce que ànd ñu si li nga xamante ni def nañ ko muy séquestration contre Cheikh Omar Diagne si loo xamante ni dañu gis ne injustice la ñëpp di ko gis Sénégal yëpp xam ne lii injustice la. donc ngeen yaakaar ne Sénégal après noonu nii lañ koy bàyyi quoi mooy ñu jàpp ay nit di tëj parce que ay ay góor jigéen la ñuy xeexal nga gis ay nit yu naafeq ñeu taxaw ne dañuy défendre président quoi lan lañ koy défendre parce que nan non c'est que président mi ngi liggéey président def na li mo fi def terre bi mo fi def li mo fi def li après terre bi lan lañu jural ay nit yu nafex ay nit amna ay nit yo xamanteni ni gis nga ñi ngi ci ñi ñen ñi ngi ci Europe bi ñen ñi fi di def ay live gis nga billahi wallahi wa ta'ala taalaay ñu dara xam la lañ gëm xam la lañ gëm moy li nga xam ne loolu leen état du Sénégal di jox di leen jënd ñu koy tag tagg ñu dara dañuy sóob xam nga ne ku taxaw naan Macky Sall mi ngi liggéey mag Sall dafa am yërmande Sénégalais yi dund gi dafa nga dem ba gis ay mag yi jëmm taxaw si ay plateau télé naan la dund gi dund gi seeru dund gi yokkuñu ko loolu dama nga wax ko sénégalais yi nga xam ne dañuy xëy di jënd Nescafé Nescafé bi daan jël juróom si biti gi dama nga wax leen ne dund yi kenn yokku ko omo sax dañ ko yokk bi doon jar cent franc ñu koy jaayee cent vingt cinq Sénégal dem ba tollu foofu am ñuy taxaw ci télé ak rajo yi di défendre président quoi parce que nee nañ président mi liggéey te dafa am yërmande si sénégalais yi lu yàqu Sénégal rek Macky sàll moo ko yàq Macky Sall baaxul te ànd ku baax te mës sa àndal ak ku baax xam nga Serigne Serigne Serigne Sall Sall waxoon na ko ne président de la république Macky Sall yaa ngi liggéey waaye ñi la wër kenn baaxu si Serigne bi da ko warul suur boobu moo tax mu ne ko ñi la wër kenn baaxu si xam nga mënoon na ko mënoon na ko ne Sall yaa ngi liggéey mais ñi nga àndal kenn baaxu si. mais rus gi mu ko rus moo tax mu ne ko ñi nga ñi la wër kenn baaxu si mais daf ko waroon wax ne ko yow baaxoo ñi la àndal kenn baaxu si parce que amuñu benn yërmande si sénégalais yi amuñu benn yërmande si senegale yi léegi nag ñun sénégalais yi ñoo war a taxaw am fulla ak fayda ñu toll ni taxaw ngir défendre suñu réew mu jaral ñu teyle suñu bakkan billaay wallaay wa taalaay fekk sénégal jaralaguñu mu teyle suñu bakkan ngir sénégal li ñu bëgg duñu ko am liñu bëgg duñ ko massa am moy dañuy xey dem élection après ñu né liste bi moy dem liste bi du dem liste bi éliminé nañ ko bi moy dem bi titulaire bi suppléant après ñu taxaw naan non lii du yoon c'est pas normal injustice la après ñu ñu wax ko dem ci manifestation après bu ñu fa jugee mu jeex ñu dellu ku nekk dellu ci lim mu nekkoon quoi après élection yi ñëw au lieu que ñu ne élection du am wala liste yëpp nañu dem après danaan ak ah, garaawul. nañu dem rek buñu démé xeyna buñu démé ci liste bi nga xam mom lañu am xeyna na yàlla mën naa def ñu gagné ko duñu gagné dara waxon na leen fi Macky Sall dafa yor ay dafa yor ay ay ay ay ay ay ay fiches électorales yoo xamante ni chaque élection mom lay démé élection 2019 Macky Mohamed Boun Abdallah Dionne taxawul ne dinañ gagné à 50 pour cent taxaw wax ko buñu démé ñaar ñaar ñaata pour cent lañ gagné même li waxon waxoon loolu lañ gagné. chaque élection amna fils électoral bo xamanteni mom la yobbu pour war ci dem élection bu dé dem xam lan la wara gagner. lan mo tax pour yéen parrainage mu war ko si élection législative bi jaxalu len local da ko def ñu door bu door yu metti parce que amul ben pexe pour mën contrôler vote bi légui nak il faut que ñu tàkk ñun sénégalais yi ñu xamné japp bi ñu japp Cheikh Omar Diagne du question ko ay diffamation du question ko injure public du question de menace parce que gisu len fenn fo xamante Cheikh oumar Diagne menacer na fa une ay fenn yu leer nañ la boo état bu Sénégal moo koy fen ko ci kaw Cheikh oumar Diagne dafa menacer ku gis fenn fo ne Cheikh oumar Diagne dafa menacé ngeen wax ko amul fenn fo Cheikh une Diagne def na ay menace après ñom ñu né diffamation lan moy diffamation bi moy euh, moy dana Djibril War dafa bokk li nga xam moy PCA lolou moy diffamation bi

waa ànd sàmm jikko yëpp nekk fa mu ne leen yéen dama yaakaar ne da ngeen am problème ak da am bi ngeen di nekk xale da ngeen amoon problème ak ay góor jigéen dama yaakaar ne ay góor dañ leen a mës a tëddee moo tax ngeen am haine bi contre góor jigéen ñi lan moo ko ci fekk dara fekk ko si parce que lan parce que APR la bokk parce que lan parce que mouvance présidentielle la nekk parce que lan parce que dafa jege Macky Sall parce que day défendre Macky Sall parce que day dellu si aw si si kaw ay opposant ak ay leen saaga te du mujj parce que dafa bokk si Macky Sall bokkul si Macky Sall bu ko defee après mooy loolu loolu loolu mooy si su Sénégal mooy da ngay ànd ak Macky Sall lu la neex nga def àndoo ak Macky Sall lépp loo def yoon dal sa kaw. lépp loo def yoon dal sa kaw pour yéen pourquoi Macky Sall dem dajale saa saagakat yi di def ak ñoom ay ay ay live quoi naa ne non ñu ngi nii président nit ñi bëgg nañ si yow xam nga nit ñi lay bëggee. Macky ñàkk fayda ñàkk fayda gu toll yi ñoo xam xamante ni dañ doon saaga ndeyam démb si ay live Facebook. tey ñooñu la àndal ñuy def live naan ko président nit ñi kontaan nañ si yow nit ñaa ngi lay bëggee président boo xam ne amul benn légitimité quoi ci si bëtu ci bëtu nit ñi mu jiite. amul benn légitimité Macky Sall amul benn légitimité ci nit ñi mu jiite léegi nan lay mujj def mooy euh, day dem di di wut ay ay ay légitimité ay ay Russie quoi ay France foofu la koy wutee. maanaam yenn yeneen dëkku Afrique gis ko wala yeneen dëkk yi nga xam ne ay tubaab lañ ñu ne ah président kat mooy loolu jàmbaar la parce que yenn mission yu bëri yoo xamante nii pour su xale Afrique daf fi daf fiy dox daf fiy dem ay mission lépp Afrique daf ko jaral lu nekk muy dem fu nekk ngir Afrique fekk na day fen gëmu si dara dara dara dëkkam bi mu bàyyi ay problème mu kese kese kese la fi bàyyi mu fi bàyyi nit ñi xiif amuñu lu ñu dundee nit ñi mar amuñu ndox mu ñu naan sangu sax parfois pour nga def ko problème la ندم نان naa da ngay régler ay yeneen problème yoo xamante ni daf concerne ñaari dëkk yu xeex nga baye fi lu raw xeex te mënoo koo lijjanti nga dem nan da ngay lijjanti yenen problème Macky Sall kan la yab ak ñak jom di nekk ci mom ak ñàkk légitimité lan moo tax Macky Sall mënoo liggéey ngir Sénégal nga am fi légitimité sénégalais yi naw la sénégalais yi bëgg la quoi am fuñ la tek tuuti mo gën ngay dem di ko wuti fenen ci tuba bi

ndax dañuy dugg si gaal yi dem tayale seen bopp parce que gaal yi yi nga xam ne moo yi waroon nañ ko jël pour dem napp ji accord de pêche yooyu nga xamante nii moo leen waroon a may parce que bu ñu ko jaarle woon si yoon mu war leen a may ñu dem jël seen ay gaal dem nappi jën ñëwaat am jën yu bëri accord de pêche yooyu la ñu du jaarle ko si ay si ay signature yoo xamante nii ay jaay suñu ressource naturelle jaay suñu géej gi bi di ñëw ñëwuñu di napp jën mais dañu ñëw pour manque dem leen xool bato bato espagnol yi wala bato chinois yi nëpp ñu jën mais dañuy mànq xam nga napp mooy nga sànni sa mbaal sànni xëy na di nga jën yu mag ngay jàpp mais dañuy mànq jën yi nga xam ne sax dañ doon door a sax yëpp dañu koy yóbbaale bu ñu àggee dem sànni ko parce que deewuñu ko dara di jël yu mag yi. yow chaque année sa réew di am loolu nga dem naan da ngay lijjanti ji problème boo xam ne yow sa yoon nekku si parce que lan ay man maay ay président union ñu africaine. ku mënul nekk président 17 millions sénégalais mën nga nekk président 1 milliard 1 1 milliard d'Africains. africain wala wala sax wala sax moyenne parce que du du Afrique yëpp bokk ñoo africain je pense. ku mënul régler ce problème mu est ce que mën nga dem di di régler ci problème mu Afrique yëpp. li mo lay wane ne gis nga ay ay ay union africain ay ay CEDEAO ay yi gis nga yëpp taxawul gis nga ñooñu kurel yooyu noonu du pour Afrique defuñu ko pour africain yi.

léegi nag bu fekkee ne ñun Sénégalais yi dañuy taxaw di seetaan Macky Sall di jàpp ay nit di leen tëj parce que dañuy xeex mbirum góor jigéen ku mel ni Cheikh Omar Diagne ñu taxaw di ko seetaan parce que ku nekk di di ngeen di nangu ñu leen di manipuler waa naan leen kii moo fi daan wax lii moo fi defoon lii ñii di dagg am ñoo xam ne daf leen di jaral daf leen di jaral ñu dem jël benn vidéo Cheikh Omar jaañ dagg ko këccët jël beneen wax boo xam ne wax na ko feneen. boole ko si fexe ba boole ko si mu doon benn wax après ñu ne gis ngeen kii li la wax sëriñ bi fekk na lu lépp ay kàcc neen la dara amu si dara amu si am na ñoo xam ne jaral na leen loolu ñu ngi jël ay vidéo di ko montage di ko dagg benn par benn di ko di ko di ko di ko ñëw di ko taqale di ko jox wan askan bi nan leen moo wax lii seen sëriñ moo wax lii moo wax lii Sonko wax na ko démb je pense que ñu bëri bari dégg nañ ko leeral na ko démb mooy que ne Sonko nee na bu leen kenn nax si Cheikh Omar Diagne dañu ko jàpp parce que dafa wax lii sëriñ wala déedéet ay góor jigéen ñoo ko jàpp démb la ko wax place de l'Obélisque ñun ñëpp ñun ñëpp ne nga fa on pense que maa nga fa on yéen a nga fa on sax xëy na ñuy ñëwaat si li mu waxoon parce que leer na naa ñi loolu kese la léegi nag il faut que ñun sénégalais ñu jàpp si bu ñu wootee ngir Cheikh Omar Diagne ñu ñëw teew xam ne teewuñu sax pour la personne de Cheikh Omar Diagne mais dañu ñëw par principe par principe ak défendre les valeurs ak aussi défendre quelqu'un qui xamanteni défendre ay valeurs parce que lan parce que sax ci Sénégal té ki nga xam un mi projet naka lay pour yaatal mbirum Sénégal parce que ñaan duñu a moy ki nga xam dafa projet pour daganal mbirum ak ki nga xam dafa projet pour mbirum légui nak il faut que les onze sénégalais bi lillaahi wa rasuli maa ngi woo képp koo xamante sénégalais képp koo xamante da ngay défendre ay valeur képp koo xamante ni bëggoo mbirum góor jigéen les onze insha rabbi samedi ginnaaw suba place l'Obélisque à 14 heures ñu ñëpp ñu fees fa dell pour wan Cheikh Omar Diagne mu gis mbooloo mi xam ne bi nga xam ñoo tax woon dem place l'Obélisque bi bi naan Cheikh Omar Diagne ba léegi ñu ngi déterminé wu ñu ngi nekk si ginnaawam te bëgg nañ ñu libéré ko nu mu gën donc loolu laay woowee sénégalais yëpp le 11 samedi inshallah allahu rabbi ñu ñëpp ñu ñëw place de l'Obélisque ñu fess fa del à 14h pour ñu demander pour ñu libérer Cheikh Oumar Diagne parce que trop c'est trop te lu ëpp touru te Cheikh Oumar Diagne ñu ngi koy jaay doole si lo xamanteni ni tegul si benn dëgg tegul si benn yoon te ñu ngi koy seetaan te nak ku sétane ku nekk complice nga képp ku sétane état de Sénégal ku ne di di jaay doole Cheikh Oumar Diagne di di di bafouer li nga xam mooy ay droit ay ak ak ay yelleefam ba si biir prison bi droit de visite bi nga xam ne waroon na ko am sax ñuy wàññi nombre de visite bi mu waroon am def ko par 15 jours te par 15 jours benn visite da si am droit am nga toog di seenaan loolu état bu Sénégal di continuer di ko def à complice euh, euh, l' administration pénitentiaire képp ku taxaw di seetaan loolu te génnoo demande pour ñu libérer Cheikh Oumar Diagne parce que complice nga si loolu noonu donc je pense que loolu kese la c'est simple mooy le 11 ñun ñëpp nañu ñëw taxaw.

ba léegi amul kenn koo xam ne ba léegi waxuma la waxuma la ay tëj xam nga sax mën nga ne tëj nañ ko mu dem rëbës wala woo nañ ko commissariat ba léegi Madiambal Diagne demul sax enquête commissariat bay dem rëbës wala muy dem wala wala wala muy dem feneen ak feneen ba léegi amul benn siis boo xam ne convaincu nga convaincu nga ko si loolu noonu ngir déglu ko sax li gën a simple mooy nga déglu ko mu dem ba léegi tey jii la gën a tey jii la gën a yor benn surnoom xaw ma surnoom la xaw ma rëy làmmiñ chaque lundi mu génn ay ay la lundi de Madiambal Diagne di fenn fen yoo xam ne chaque lundi li mu wax dangay naa ne kii fenkat bu mag a mag la booy wër fenkat ba jàpp ko da ngay taxaw ba léegi mu ngi koy continuer di diffamer di insinuer nit ñi te mujjul fenn parce que lan la parce que dafa bokk ci mouvance présidentielle parce que day défendre Macky Sall Gabriel Kane lan lañ ko toppee woon diffamation injure publique ñu condamné ko ba léegi kenn woowu ko. léegi Cheikh Oumar Diagne moom buñ ko jàpp buñ ko topé diffamation insulte publique moy directement dañ ko wara a ba rëbës après bu ko fa yóbboo ñu di ci information judiciaire après information judiciaire bi man nañu tok 1 an ne dañuy topp information judiciaire parce que information judiciaire kan moo koy def police judiciaire moo koy def enquête la enquête moom amul app parce que heure bu la nexé ñu ne ñu ngi si enquête bi lo si man mëno ci dara ba légui ni dossier Cheikh Oumar Diagne amul dara lo xamné ne yëngu na si du wo déglu ko du entendre du dara.

mais dañu leen a menacé ñenn ñi ragal ñenn ñi di am lu ñu sóoraale moo tax ñemewuñ see wax ñoom ñëpp ay tàppet lañ gëmuñu dara dañu sóob ñoom ñëpp ay tàppet lañ parce que mënuma gëm ne yow da ngay xeex ay principe mënuma gëm ne yow da nga am loo gëm mënuma gëm ne yow bëggoo mbirum góor jigéen ñu jàpp nit parce ay góor jigéen ñoo ko jàpp tëj ko si kaso bi yow nga maanu si ne doo si wax nga ne doo si wax quoi pour lan parce que lan moo doo si wax parce que dañu ragal ñenn ñi dañ leen a menacé loolu kese la léegi nag ñun sénégalais yi ñun jeunesse bi ñoo mën a taxaw pour génn Cheikh Oumar Diagne mu nekk parce que dañu ko soxla ci débat public bi dañ ko soxla ci débat public bi parce que dafa doon nit koo xam ne nit ko am solo la ngir Sénégal nit ko am solo la ci débat public bi donc moo tax maa ngi ñaan askan bi lii laay war a suuli samedi na ñëpp génn place de ci 14 pour ñu demander pour ñu libérer Cheikh Oumar Diagne ñu mu gën a gaawee parce que nag trop c'est trop te donc live bi tey loolu moo ko waraloon maa ngi jégalu lépp loo xam ne wax naa ko si mu dëng rek ngeen xam ne euh, doom ay doomu aadama lañ dañuy juum lépp loo xam ne xëy na jub na si rek ñu xam ne si yàlla suñu borom la donc wasalaatu wasalaam ala rasulillah maa ngi baal waat ñëpp àq di baal ñëpp àq jaa ngeen jëf gaay